di am di leen dalalaat ci suñuy jotaay ci seen jotaay ummati ummati ci rubrique koor Ramadan fitness di ci ànd ak comme niñ ko baaxoo def seen xarit seen soppe fadilatu imam Mouhamed Muntaka Sakho ki leen di jottali kàddu gi di seen xarit seen soppe Pape Baro Jaxate imam gannaaw bu ñu la nuyoo ziyaare la dafa mel ni weeru koor weeru promotion weeru ngëneel la ak ay xew-xew yu bëri am na ci tamit te mu doon ay événement yu déterminant ci lislaam ak propagation benn ci loolu muy fatxa Makka moom lañ lay ñaan di la laaj tey nga indil ñu ci ay leeral imam bismillah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim sama borom tabaaraka wa taala wax na ci alqur'an bismillahi rahmaani rahiim innaa fatahnaa laka fathan mubiinan saar woowu ñuy tudde suuratul Fath di jottali ko en détail xew-xew bu rëy bi nga tudd muy fatxu kët nga xam ne nii sama borom tabaraka wa taala wane dooney dooley lislaam ci kaw kéeféer ba ñépp wekk lislaam ak ñoñ lislaam nim ko wonee ci xaswatu badr noonee la effacé kéeféer ak lépp lu ko niru ci ardul xijaaz ak ci jaziratul arab noon la ko defee ci xew-xew bu rëy bile di fatxu makkata ñaari xew-xew yooyu yépp nag yàlla ngi teralee weeru koor ñu xew ci moom badr niñ ko waxtaanee ci fan yi xewoon fukki fan ak juróom ñaar ci koor bu dee fatxu makka nag xew ñaar fukki fan ci koor di bésub tey tey jii bu ñu delloowaatoon démb juróom ñetti at gannaaw gàddaayu yonantu sallallahu alayhi wa sallam gis ni sama borom tabaraka wa taala ñim am ñépp mbégére bu doon rey dana leen rey ngir ndimbal lamu mu jox jaamam jox ko diineem ji nga xam ne moom la tànn daal muy diine lislaam jim joxoon maam aadama ak ñi topp ci moom ci ay yonant seydina noox seydina ibrahim ba tëjee ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama obstacle ca nekkoon ya ca gën rëy bés bi la ko jeexal ndax mbir moo gis bala moo tasaaroo tasaaroo gu wér saxuwaayam dafay wér dëgër te makka ki nga xam ne mooy qiblatul muslimin di mahdu tawxid su ko xërëm di gouverner lislaam fu mënta nekkit mi ngeeg bopp bu métti boo xam ne feeg wérut doxin wa du mëna a wér yonentu sallallahu alayhi wa nan la ubbee makka ubbi googu xam ne boo delloo woon at yu tuuti ci gannaaw soo ne yonentu dana dellu siwaat makka te dund ñu ne la du dëgg sakka nag muy dellu makk makka ànd ak armée boo xam ne ëpp na fukki junney soldaar makk yépp torox tott ci kanamam sallallahu alayhi wa yàlla lu muy def rek daf koy jaarale ci sabat juróom-benneeli at ci gàddaay gi yonentu dafa gis ni mi ngi dugg Makka moo ki saxaaba biñ demee di dem di dem bay bëgg àgg Makka ñu intercepté leen ne leen du ngeen fi dugg waxtaan wa dem ñëw dem ñëw ba ñu déggoo ci li ñoo tuddee sulxul xudaybiya saxaaba yu bari namm gi namm màkk ndax juróom benni at ñu ngi madina namm kaaba gi namm màkk namm namm ña nga am benn genre enthousiasme pour dugg màkk ñu ne leen du ngeen fi dugg ba Seydina Omar ne yonantu xanaa du da sama borom moo la won ne danañ dugg màkk mu ne ko ah kay du ko lu tax dugguñ nag yonentu ne ko ndax sama borom daf ñoo waxoon ren mu ne déedéet mu ne ko suñ borom lu mu ñu wax diggam du dig du dëñ mu dem ci Seydina Aboubacar ak ko wax ko li mu wax yonentu Seydina Aboubacar gis nga nim meloon ak yonentu fekkewul bi yonentu di tontu Abou Omar waaye la yonentu tontu exactement la tontu moo tax walladi jaa bi sidqi foo ko déggee rek wa saddaqa bihi abubakar topp ca foo déggee rasulullahi thani ithnayni ñaareelu ñaar ñe mooy abubakar sallallahu alayhi wa sallama ñu déggoo def sulxu yéwénoo ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo saxaabaam danañ dellu si makka umra si ca déwén sa muy atum juróom-ñaareel ma loolu la ñuy tuddee umratul qada ci biir déggoo ga nag muy traité de paix ba ñu def yeneen giir yi leen wër kum neex mën nga dugg ci suufu kaaraangeeg yonantu Quraysh du la sañal sañalaa sallallahu alayhi keneen du la sañalaa kum neex it mën nga tànn dugg ci suufu kaaraangeeg Quraysh yonantu du la sañ laal de moom du laal sax ku ko def dara keneen nit du la sañ laal ñaari giir yu mag banu Bakr ak Xuzaa banu Bakr dugg ci kaaraangey Quraysh atu dugg ci kaaraangey yonantu sallallahu alayhi wa yàlla ate Banu Bakar ne waaw ñun ñu xusaa ci ay lañ dëkk te dugg nañ ci kaaraange Quraysh yonent duñu sañ a laal Quraysh yi danañ ñu dimbale atu mën nañ leen a def liñ bëgg a def ndax fi mu nekk ni ñu ci traité de paix Quraysh ak yonent duñ xeex ñu daldi dal ci kaw xusaa Quraysh bañ yëgee loolu terewuñ leen ndax xam nañ ne ay woowu mën naa jur xeex seen digganteeg ñooñ lislaam non seulement terewuñ leen waaye ñu dimbale leen ci ay ngànnaay ak i nit te di ko nëbb nag yonentu bañ ko yëg yàlla àtte xuzaatu yëgal ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba Quraysh xamee ne rasulullahi yëg na ko ñu yónni seen kilifa muy Abu Sufyaan pour mu ñëw waxtaan ak yonent réparer yàqu-yàqu boobu renouveler traité bi mu ñëwee wax a wax a wax wax fekk yonentu wax na xusaatu ne yàlla bu ma yàlla dimbale su ma leen dimbalewut ñu xam ne yonentu dana leen dimbale yu Abu dikkee wax yonentu tontuwut ko mu dem ci Abu Bakar tontuwut ko mu dem ci Omar tontuwut ko mu ñëw ci Ali Abi Talib tontuwut ko mu insisté nag ne ko matara yaa abal xasan loo foog ne laa war a def mu ne ko xawma loo mën a def lu la jëriñ tey waaye étant sangu banu kinaana jógal rek nga ne yow defal nga jiwaar nit ñi mu ne ko ndax loolu dina ma jëriñ mu ne ko du la jëriñ waaye gisuma loo mën a def lu dul loolu mu jog def ko dellu Makka Quraysh ne ko loo indi mu nettali leen li li mu indiwaale yonentu tontu Muhammad lay wax moom waaye ñun sañuñ wax loolu Aboubacar tontuwuma Omar kenn ci ñoom faaliwuma Aliou daal moo ma ne defaral jiwaar nit ñi de ñu ne ko nga def ko mu ne waaw luñ la wax nag mu ne waxuñ dara ñu ne ko yow Aliou lim la fooyee sax moo ëpp li la ñëpp tontu. ndax daf la doyadal yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax saxaaba yi yëpp nañu préparé wu ne leen nag bu kenn siiwal mbir mi wax na saxaaba yi Medina wax na giir yi ko wër ku nekk préparé wu bi noo seulement mi ngi leen di nëbbaloo mbir mi waaye ñaan na yàlla mu nëbbal ko mbir mi ndax dajale giir yépp war a dem màkk te waa màkk duñ ko yëg kooku yàlla rekk a ci mën a jàpp moo tax mu def ñaanam gu rëy googu allahuma xudil axbaara wal uyuuna an quraish xatta nabgataha fi biladiha yàlla fexeel maa ngi laa ñaan xabaar yi sama génn bu ko quraish yëg mu dajale ba bi muy génn Medina am na fukki junni soldaar am na saxaabi bu ñuy xaatib beltaat wax nañ ne bind na Quraysh pour ñu ñëw ci yonantu sallallahu alayhi wa waxtaan ak moom de li yonantu nar xajul ci ñoom waaye defu ko woon ngir ak nafiq daf ko defoon ngir tawil bu jagut te ba mu ko waxee yonantu bi yonantu bi comprendre na ko ne wax na dëgg Omar xam nga moom dafa tàng ni kii naa naafeq la nañ dagg boppam yonentu ne ko déedéet kii fekkee na Badr te lu la xamal ne yàlla xool na waa Badr ne leen def leen lu leen neex baal naa leen moo tax ñooñ Badr grade boobu la ñu représenté ci l'islam boo dee xool téere yi tarjumal saxaaba yi sax ñooñ Badr lañuy njëkk a tudd yonentu wax na Jibril bés ni ko yéen nu ngeen nu ngeen jàppee ñi demoon Badr ci yéen yonentu ne dañ leen jàppee ñu gën ci jullit ñi Jibril ne ko moo ne ñi deewoon Badr ci malaaka yi tamit noonu lañ leen jàppee te xatib boobu ca la bokk ci gàttal yonentu sallallahu alayhi wa sallam a ngay génn Medina mu bàyyi fa sayiduna Abdullahi ibn Ummi Muktum mu wuutu ko Medina ca yoonu makka wa ba mu yeggee Juhfa di benn ci barab yi ñuy xarmale bu ñuy dem makka li mishra li shaami wa misra bi tay li eh, naka la ko borom ibnu ashir waxi ihraamu miqaatin fa dul xulayfa li tayba li shaami wa misra al juxfa qarnun li najdin zaatu irqin lil iraq yelemlemul yemani aatiha wifaq armalukaayu ñooñ misra yooyu te Sénégal fa lañ daan armale suñ jaareewul Madina fa la yonent bi dajeeg Seyduna Abbas baayam bu tedd ba ma nga jóge Makka ànd ak njabootam di gàddaay si ndax moom li mu nekk jullit yépp Makka la nekk nekk fa tamit bëtu yonent bi ak tànkam bañ yeggee ci barab bu ñuy wax Abwa ci la dajeeg ñaari cousin am kii doomi bayta xam la abu sufyaan doomi xaaris doomi abdul muttalib kii doomi bajjanam la abdullahi doomi abi umayya te ñi ko gënoon a bañ lañ bokkoon bokkoon ci ay noonam yàlla tàggat na seen xol ñu ngi nii di gàddaay si njëkk yonentu sallallahu alayhi di ubbi makka yonentu xol abu sufyaan abu sufyaan bi bokkul ak abu sufyaan bi ngeen xam bii sëtu Abdul Muttalib la ne ko yow daal yaakaar naa ne arju an yakuna xalafan min Hamza kii daal yaakaar naa moo war nekk xalifaay Hamza Hamza oncle am la tamit maanaam ni Hamza meloon di gaynde yàlla ko yonentam njàmbaar googu daal gis na ko ci doomu bàyyi taxam ñu continuer mook armée ba barab bu ñuy wax Marru Waraan barab bu jege màkk la yonentu sallallahu alayhi wa ne soldaar yi nañu tabax nañu nañu taal fukki junney safara xam nga fukki junney juum foo ko taal ñëpp koy seen am ñu ne daf ko def pour xupp waa Makka Abdoulaye ibnu Bayya ne déedéet daf ko def pour avec wan leen ne leen maa ngi nii maa ngi leen di jox second chance su bëggoon a ñëw faagaagal waa Makka konoon du def loolu daf leen di bett waaye dafa taal toog di xaar daal di def ca gàrd ba nag Seydina Omar ibn al-Khattab radiallahu taala an baayam Abbas war baxlaam ga comme ji gis na lii xam na li ci yonent bi jublu moom mu daal di jël baxlaam ngir xool ndax dina gis ci kenn ci waa Quraysh wax leen ne nañ ñëw yéwénoog yonantu balaa ñoo alku sallallahu alayhi wa naka la nekk di dox rek dégg benn baat mu ngi wax ak bu dey la naan ko safara sii de mosuma gis safara su rëyee nii ndeke Abu Sufyaan la stratège la woon moom it moo doon chefu guerru Quraysh moo doon seen njiit ci jamono jooju sax bu dee lu ne ko lii daal xam naa ne giir xusaa la mu ne ko ah xamuloo li ngay wax xusaatu gën na gën nañoo tuuti nii gën nañoo doyadi nii armée lii du xusaatu naka naka la abbas déggee baatu abou soufiane xàmmee ko dal di ko woo abou soufiane ne ko yaa abal fadl arab bu la woowee sa turu doom rek ma ngi la màggal waaw yow bàyyi diw bu la ko woowee rek jox na la cër lu xew mu ne ko yonentu yàlla rasulullah ya nekk nii sallallahu alayhi wa sallam ànd ak nit ñi mu ne ko ah luy pexe nag mu ne ko waral ci baax la gi xam nga booba baax la amul foofu baax la amuloon xijaaz bi fa njëkk am yonent bi moo ko am te dañ ko ko may waaw Afrique yi la baax la jëkk a jógee dem xijaaz jox ko yonent bi comme cadeau sallallahu alayhi mu ne ko waral ci baax la gi ma ànd ak yow bu ma demee ci yonentu sallallahu alayhi wa ma jox la amaan mu ñëw ak moom bi ñuy dugg si nag xam nga baax la yonentu bi lu yonentu bi war ko abbas kenn du xool kanan kan la àndal waaye Seydina Omar moom it ci ñaw ga ndeke xamee ne Abu Sufyan kii kan la noonu yàlla bi ma gis la te man ak ñun ak yow amuñ benn traité de paix maanaam yow ñu ngi ci instance de guerre yow kay dagg sa bopp bi lay def abbaas daal di dawal baax la bi pour Omar bañ a laal euh, Abu Sufyaan ba yóbbu ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu ne ko Abu Sufyaan amaana laka an taalama an laa ilaha illa xanaa jotut nag nga xam ne yàlla rek a yàlla mu ne ko bi abi anta wa ummi maa ngi lay jotee sama baayak sama ndey maa ahlamaka yow yonentu bi yow Muhammad kenn gënu laa lewet wa akramaka kenn gënu laa tedd wa awsalaka kenn gënu laa mën a jokk bokk laqad alimtu an law kaana maa allahi gayra an law kaana maa allahi gayruhu la agnaani anni xam naa ne bu doon yàlla am na keneen ku dut moom ku nekk di yàlla konoon kooku dana am lu ma jëriñ ndax suñ xërëm yi li ñuy bëri bëri jëriñuñ ma dara mu ne ko xanaa xamoo ne xanaa jotu na nga xam ne man la yàlla yebal mu commencé di yéexamtu abu abu Seydina Abbas ne ko ngal la yow jébbalul mu daal di jébbalu daal di ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye yonentu xam na ne jébbalu na waaye am na lu des ci xol bi mu bëgg nag loolu dëñ yonentu ku nekk nam lay doon tarbiya sallallahu alayhi wa mu ne abbas na ànd moom ba ca madriqul wadi inda xatmil jabal mu taxaw ak moom foofu fi nga xam ne fa la armée bi war a jaar parce borom doole doole koy wàcce yonentu sallallahu alayhi wa yebal giir yi ñuy dem giir gu nekk nag ak drapeau giir gu romb nag mu ne Abbas ñii ñana mu ne ko ñii ñooy giir diw seen drapeau ngi nii kii moo leen jiite mu ne man lu ma jotee giir giir gi ñëw mu ne giir diw ñu toog ba ci kanam ñu gis armée boo xam ne kenn mosul gis armée bu mu ne ñii ñan la mu ne ko ñii lan sa ar la mooy waa Madina yi Saad ibnu Ubaadata moo leen jiite moo yore drapeau bi bi saadu tolloog moom rek ne ko aba sufyaan al yawmu yawmul malhama tey jii de mooy bésub xare bi al yawma tustahallul kaabatu tey jii la ñuy daganal kaaba gi maanaam tey lañ leen di xalak yéen ñëpp xamagul ne abu sufyaan jël tuub na bii nga xamee ne beneen euh, katiba agsi na katiba boo xam ne moo gën a néew ci lim waaye daraja ja dafa ëpp ndax ci la yonent ba nekk sallallahu alayhi wasallam da koy xool rek yëg or ak ak ak màggaayu katiba mu ne bii bana mu ne ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñëw ak sahabaami fekk drapeau ba Zubayr ibn al-Awam a ko yore doom bàjjan la ci yonent bi sa alayhi wa sallam Safiyatoo jur sëru Hamzatu bi mbokkal ndey ak baay bi yonentu accès nag Abu Sufyaan li mu ko njëkk wax mooy li ko Saadu wax mu ne ko déedéet saadu dafa juum tey jii mooy bés bi yàlla di màggal kaaba gi tey jii lay ñuy waddu kaaba gi daal yonentu nag pour corriger saad mi nga xam ne mooy généralu ansaar yi ci wax jooju mu wax mu ne nañ jël drapeau bi ci saad discipliné ko waaye yonentu discipliné am sax dafa rafet xam nga bi mu ko jëlee ku mu ko jox doomam ci boppam doomi saad mu ngi mel ni nga jël drapeau bi ci suuf gi jox ko Ibrahima suuf gee ko yore ba léegi mu jël drapeau bi ci Saad ne nañ ko jox Qays doomi Saad pour lan discipliner ko waaye du tax tamit mu yëg ne discipline nañ ko ndax doomam lañ ko jox yonentu nag bañ demee ba kii mu digle nag ñu def ñu de an turkaza raayatuhu bil xajun foofu nag la yonentu sallallahu alayhi wa war a jóge di dugg Makka nag bi muy dugg nag makk yëpp a ngi dal sallallahu alayhi wa alihi wa dégg nga fekk yebal na euh, Zubair ibn al Awaam yebal Xaalid ibn al Walid kii jaar fi kii jaar fële naan yonentu nee na képp koo xam ne dugg nga ci jàkka ji wóolu nga maanaam yaa ngi ci sécurité kenn du la laal képp ku dugg kër Abu Sufyaan wóolu nga képp ku dugg sa kër tëj sa néeg sa tëj sa kër wóolu nga yonentu ma ngay dugg makka ñëpp a ngi ko topp ba muy génn daf doon laqatu ak di daw def ñetti fan ci xuur wi soo ko génn jaar yoonu tefes gi di teggi ba ni mu yeggee ci tumuraanke tey mi ngi dugg si ànd ak armée boo xam ne xajuñ makka waa makka ngonk yëpp ña ngay laqatu ñii ñu ci suufam di teen di xool la muy def yonentu du kuy puugaréew mu rus mënul sax siggi xool leen mënul siggi xool asamaan mi ngi teg jëm daanaka ci kaw euh, dégg nga tegam gi di bëgg laal suuf mi ngi porté sëtam bu baax ba Aliyu doomi Zeynabu di jàng laay ji nga xam ne moom laa ubbee naan inna fatahnaa laka fathan mubiinan di ko répété naa fatahnaa laka fathan mubiinan di ko répété inna fatahnaa laka fathan mubiinan di ko répété ni yonentu nag duggee Makka ak ni mu ubbee Kaaba gi ak ya nga xam ne moo fa xew ak discours yam fa def ak organisation ak la nga xam ne moo xew gannaaw ga jàngat yooyu ñu leen di jox rendez-vous ngeen àndak ñu suba bi idnillahi tabaraka wa ngir ñu mottali ko ndax bëgguñu jël waxtu yépp Seydi Pape jërëjëf Fadilatu Imam jërëjëf mbokk yi ñu doon déglu fatxu makkata la woon ci seen émission ummati ummati di leen joxe dikk daje ëllëg ak jàmm incha allah wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin